Balla Gaye lañ koy waxam ak Bombardier seen làmb ji nañ sëriñ ci dawal yàlla ragal yàlla lekk ganaar ba suur te de si jog mu ju la neex toog ne diw mooy daan man su ma noonu la diw mooy daan te nangam lañ ko daane virgule du ci dëñ kon xam nga jël bi mais man sos mais man suma martaba ak suma personnalité dépassé na mbëri ma wax ci seen seen làmb ba ilaa yawmil ci nekk man waxoon naa leen ko maa ngi nekk léwénal nit si bu sëriñ si. fii ak fii man bax bax dem benn mbindeef bu yàlla bind jant bi tiim la mënoo maa fay maa ko wax. mais sama gars yi ñoo dégloondoo <laughs> Serigne Moustapha Dramé yàlla kese man ay réel ma def quoi sama gars yi <laughs> eh, gars yi ku abonné nga abonné ba sàll si close pour nga bañ a raté benn si vidéo yi ñu ok merci wasalaam.